sëñ bi du Sané ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay. ngay coordonnateur communal Pastef bu Ziguinchor ñu gis leen ngeen di artu euh, ci élection yi ñu jëm ak euh, jébalu carte électeur yi euh, ngeen ñuy xamal ne lu toll ci cent quatre vingt rek ci quatre mille six cent soixante-cinq ñoo disponible foofu ci Ziguinchor ndax mën nañoo xam lan ngeen jàpp ni lii loolu lay wundu. Hmm. ndaw lu mu lay njëkk wax mooy lan élection yi ñuy jubal nii te Ousmane Sonko war a nekk candidat pour maire yi. Hmm. Ziguinchor dafay am toujours lu particulier hmm. lii yëpp commencement bii la. Hmm. te affaire carte la ñuy wax. dafa mel ni Macky Sall bëggul waa Ziguinchor ñu mun a voter. parce que munoo comprendre quatre mille six cent soixante cinq personnes fu ñu waroon voter nga indi lu dul ay cent quatre quinze cartes donc du dara. c'est parce que pour ñoom quatre mille six cent yooyu yëpp bu ñu mayoon ñu ñëw te dañu ragal ñu ñooñu ñëpp ñu voté Ousmane Sonko te écart bi day gën a rëy parce que Macky Sall problème moom mooy lan dafa am lu leer lu ko Ousmane Sonko wax mu ne ko jour bu muy am vingt cinq pour cent si Ziguinchor nga xam ne moom Ousmane Sonko tuddul Ousmane Sonko te mu nekk loo xam ne ñun fii yëpp Ziguinchor gëm nañu ni Macky Sall amul lu mu lu ko mun a may tey mu am sax ay vingt cinq pour cent léegi ci la commencé affolé gis ministre intérieur am pour mu dolli ko ci xalaat pour que lépp loo xam ne mënuñ ko def pour saboter pour yàq élection Ziguinchor ñu mën ko def donc nekkul lu bees ñëpp gis nañu ko mais ñoom matadi bi ci seen côté def tollu na foo xam ne même bu ñu def complot duñ ko def avec intelligence loolu mooy le seul regret alors que république ku ko porté mhm. am na foo war a tollu en terme de background ak de intelligence ba nga xam ne yéen ni boo ko defee lu xale bu ndaw moo ko war a mën moo ko war mais Macky Sall complot bu mun a tabax xale bu tuuti bu nekk c'est deux sax daf koy koy a gis daf koy teel a xam. Mhm. et là c'est dommage. kon da ngeen jàpp ne ragal daal moo tax ñu doxalee nii. weesu ragal sax ak soxor boole ci soxor Macky dem na ba du tudd tuuru Ousmane Sonko léegi parce que dafa am benn complexe bu mu am ci Ousmane Sonko parce que lan la Ousmane Sonko daf ko woon ni ci xam-xam tuuti nga trop quatrièmement Ousmane Sonko daf ko woon carrément ni. yow yaay président te man maay le chef de l'opposition aujourd'hui mënul supporter yooyu yëpp léegi complexe boobu aussi loolu la xam nga parfois da ngay nekk président mhm. mooy titre bi mhm. mais sa jëmm attanul yeen ni loolu indi complexe parce que dafa nekk président mais moom ci boppam buy déglu Ousmane Sonko dafay mhm. toog au fond de lui-même mu xam ni dëgg dëgg dëgg Ousmane Sonko dafa daan voilà léegi au lieu mu profiter pour mu mën a rabitaay boppam ci xam-xam bu Ousmane Sonko di koy jox non mu koy tontu moom ci affaire soxor Mmh. et malheureusement le monde d'aujourd'hui appartient aux gens yoo xam ne dañu humble du benn gàcce wane carrément ni xaw ma damay jàng. Mm-hmm. mais moom malheureusement le propre des personnes yoo xam ne dañu am carence soxor violence ak complot moo indi pratiquement tey Macky Sall toppatoo développement Sénégal mais ci ay complot kese kese la nekk ci complot bu mu def xale bu gën a tuuti au monde sax teel ko gis teel ko dénoncé. Mhm. tey yéen a ngi jàpp ne li ni mel ragal la ak soxor alors que yéen analyste politique yi ñoom jàpp nañ ne kii di Abdoulaye Baldé di maire sortant moom jamono ji mooy favori foofu ci Ziguinchor. ñi ngay wax analyse politique yow la engagé lan la ñu ba ñu nekk ay analyse politique. Hmm. xaw ban agrément la ñu am pour porter ce titre premièrement. Hmm. Hmm. deuxièmement am na ñoo xam ne dañuy def seen pronostic. au lieu ñu naan man dama def sama pronostic. Mm. ñu naan sondage sondage dañ koy jàng am na nu ñu koy defee. Mm-hmm. donc man franchement quoi bu c'est un peu ridicule quoi. voilà parce que ku jóg rek man analyse politique la mm-hmm. amul fenn fu ñu koy agréé amul benn kayit bu koy wone yow yaay tuddee sa bopp analyse politique nga wax bëgg a entraîner nit ñi donc mm-hmm. ñooñu reconnaître ma sax seen statut yooyu ba di discuter ak loo xam ne ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. tey lu tax ngeen jàpp ne ciblage la ndax Ziguinchor commune rek la mbir mi xewee wala yeneen localité yi tamit euh, da ngeen gis ne dara amu fa lu ñagas. commune Ziguinchor kese moo am problème boobu commune leen ñu wax parce que ku nekk mi ngi jël kartam mhm. mais commune Ziguinchor comme foofu la Ousmane Sonko di voté foofu la coow li yëpp di am toujours. tey préfet daa dina réagir ci mbir mi ne euh, fii ak ay fan dina ñu indi euh, carte yi des ndax jàpp leen ne da ngeen na teel a non mun mënul wax leneen lu dul lii. Hmm. préfet même su président bi di wax ay wax ñagas ñagas moom buy wax dafay wax wax pour defar pour luy neex président parce que moom moo fi toogal président. Hmm. donc préfet mënu fi toogal président mu wax leneen lu wute ak lu muy wax. Hmm. mais préfet si boppam xam na ni du moom mooy imprimer carte du moom mooy inscrire ay nit. du moom mooy ordonné pour ñu indi lu ñu war a indi Ziguinchor. moom fii la toog Ziguinchor comme ni ma nekkee fii Ziguinchor. lu ñëw fekk ko fii donc wax bi wax diplomatique la moom dafay wax digganteem ak président ak digganteem ak ministre bi te leneen lu mu wax lu ute ak li mu tëb donc président boobu donc préfet donc waxu préfet kooku bu ñëpp xamee fan la ñu jaar pour nekk préfet du concours nga def nit mooy toog ni nga doy ko mu ne la toogal ma fële voilà est ce que léegi di di nga toogal nit kooku ba pare nga am sañ-sañ di wax leneen keroog ngay tëb donc préfet moom boppam lay gérer gérer aussi intérêt digganteem ak président donc waxam boobu kenn waru ko jël en considération tey ci processus électoral lañ nekk ndax yoon am na li mu may ñooñu nga xam ne jotuñu seen carte ñu def ay recours balaa délai bi di jeex. non c'est-à-dire que ñun suñu loi. Hmm. suñu conscience. Hmm. dafa reconnaître droit citoyen mu voter. Hmm. voilà donc bu ñu nee yow tey am nga droit pour nga voter amul kenn ku am sañ-sañ pour def obstruction pour tere la nga voter képp ko def. yoon dafay daan ci kawam. Mhm. donc voilà c'est réglé au niveau constitutionnel au niveau de la loi et au niveau du règlement. Mhm. amul kenn ku am droit tere moromam nit ci vote tant que réunir nga condition pour nga mën a voter kenn amul droit tere la nga vote kenn amul droit bloquer la sa vote képp ko def infraction la war nañ ko punir ci loi bi. Mhm. mais président bi comme dañu nekk président boo xam ne moom ci boppam mooy njëkk a violer ay loi lépp daf ko teg ci affaire doole parce que moo yore police bi moo yore armée bi moo yore gendarmerie bi loolu la mais ci yoon lu muy def nii yëpp délit la te délit bi su ko justice mënul ne faj le peuple souverain moo nekk ci kaw justice moo koy fajal boppam. loolu nan lañ ko mën a jàngatee. boo nekkee ci dëkk. Uh-huh. mu am ay loi uh-huh. loi yooyu ngay utiliser pour régler boo amee lu la métti. ci loo oh. ci yoon ngay jaar. waaw léegi bu fekkee ne yow dana leer ne yaa ngi jaar ci yoon. te ñi nga xam ne ñoo yore yoon bi am ñu benn volonté pour doxal yoon. Mm-hmm. bu boobaa ñoom seen bopp ñoom ñoo ne la justice est rendue au nom du peuple. Mm-hmm. peuple bu la délégué pouvoir boobu mooy nangu lu la délégué jëlee ko ko ci boppam tranché moom la ñuy wax la résistance populaire. Euh, dinañ ci euh, euh, dellu si ci résistance populaire bi gis nañ ne depuis début processus bi ñoo ngi ciy dégg ne am na lu bëri lu jaarul yoon tey mu am sax ñu jàngat loolu ne dañoo bëgg a dakkal élection yooyu lii ndax yow ànd nga ci kàddu yooyu. élection yi kenn mënu ko puus Macky ci boppam moo gis ni rapport de force yi arrangé wu ñu ko. Hmm. léegi bu mu gisee ni dafay perte élection yi. te bu ko perte psychologiquement baaxul ci moom ci la commencé indi lépp loo xam ne mun na indi ay blocage mm-hmm. loolu moo indi tey ñuy naan ay préfet dañuy pourvoir seen bopp en cassation loolu moo indi tey moom ci boppam muy joxe xaalis pour que ay nit détourné ay liste jàmbur cour d'appel ñëw ne nangeen ngeen delloo yi fu ñu waroon jaar mu ne préfet bañ leen préfet bañ ba heure bi may wax ni ak yow Mm-hmm. ci ki nga xam ne dañ ko ne simplement doo candidat ci élection yi mais yow yaa war a organiser en tant que président de la république mais moom xam xamul prérogative am bi mi ngi ni tey di bloquer processus bi ba nga xam ne waa Géejawaay waa Maat et cetera yi nga xam ne cour d'appel dafa leen jox dëgg. Mm-hmm. ba léegi mënuñu déposer seen liste calendrier électoral baa ngi dem donc lii mooy filmer comme quoi dafa bëgg a jouer sur le calendrier électoral ba ñu toll foo xam ne. fait accompli lay nekk bu boobaa ñu naan wéy lii mënul am lii mënul am après léegi ñi nga xam ne heure bi dañu waroon wax wax ñu de mhm. léegi bu affaire bi tàggee ñu ne wéy ñun ci tuuru paix dañ leen di ñaan ngeen def lii def lii def lii def lii c'est dramatique lii xew ci Sénégal mais les masques vont tomber si ñaan njëkk googule sax sànq maa ngi koy wax euh, ne dafa am benn charte bi nga xam ne dañ koo tëral euh, ngay responsable communal Pastef bu Ziguinchor ñu bëggoon a xam sa taxawaay ci mbir mi. boobu moom tontu munul nekk beneen tontu bu dul tontu bu président Ousmane Sonko joxe keroog bi ñuy def meeting d'investiture sunu candidat Yewwi Askan Wi pour la mairie de la ville de Dakar. Barthélémy Dias mhm. wax ji leer na waxu ko ci nekk waxu ko ci téléphone fi nga xam ne keroog rajo mondial yi yëpp ñu ngi fa woon rajo international ñu ngi fa woon Sénégal yëpp ñu ngi fa mhm. benn wax la wax wax boobu mooy wax boo xam ne moom laa gëm. d'accord euh, député nga woon euh, donc mu am euh, tey ñu ne dañuy dellu siwaat poste premier ministre mu jaar assemblée nationale ñu dégg ay député ñu ne loi bi dafa am luñ ci dëxëñ tey nan nga jàngatee justement dellu si googule gu premier ministre gi nga xam ne jële woon nañ ko fi non lii dafa wone carrément ni Macky Sall dafa tële hmm. kenn forcé ko mu supprimer premier ministre moom moo jóg ak ay géwélam yéen en tant que premier ministre mi ngi nekk fii day am écran digganteem ak population bi beneen élément bi mu ne premier ministre tànk mi ngi am kon lu muy wax fast track mooy pour ci mm-hmm. politique publique yi mise en œuvre bi day yéex mm-hmm. mais gis nañu ni moom ba mu supprimer primature ba léegi ci le yëpp am crise yëpp foofu am boo jëlee domaine éducation ci crise rek la ñu nekk boo mm-hmm. jëlee santé ci rek la ñu nekk boo jëlee les ministères sectoriels comme commerce avec les boulangeries gis nañu tout la la hausse des prix gis ñu fii la loi sur le logement gis nañu ko fii le problème de clean day bi mu njëkkoon wax pour affaire mbalit Dakar yëpp gis nañu ko fii yëpp donc c'est-à-dire que moom ci boppam amatul ku muy accusé échec comme direct la parce que y avait pas de premier ministre te dafa doon fast track te fast track boobu bu amoon du ñu doon dégg ay préavis des enseignants nga xam ne yeneen problème yi c'est lié au problème de délai donc aveu de taille la mais fii comme léegi lu mu tufli loolu la wonu parce que moom moo newoon premier ministre bi arrangé wu ko léegi moom mu ñëwaat dinañ premier ministre moo ko war a arrangé donc xam nga ni kenn du foyee ay institutions yu dem na tey ba finalement boo nee premier ministre dañ ko banalisé boo ne président de la république xale yi dañ ko banalisé loolu moo indi même ci biir parti am mënu mënu fa am kaddu parce que bu ñu demee ba ñu banaliser institutions yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp autorité dootul am te fu autorité amul anarchie mooy am te fu anarchie moo am subversion mooy am mm. subversion fu mu am révolution mooy am révolution fu mu am mooy indi ay changement de régime te ñun souhaité ñu ñu jaar ci yoon boobu pour jël nguur dañu souhaité ñu jaar par l'expression de la volonté populaire à travers de élections libres et transparentes waaye dé moom uh-huh. moom moom moo nekk ci yooyu parce que lan la matadi la c'est tout dafa nekk président rek titre bi rek la yor mais ñëpp xam nañu ni en termes de background ak en termes de vision dese na lu bëri d'accord sëñ bi Abdou Sané coordonnateur communal Pastef Ziguinchor ñu lay jaajëfal bu baax a baax. fay di gërëm. merci beaucoup monsieur Sané.